الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi mbokki auditeurs yi tey jii dama bëgg a dellu siwaat ci li nga xam ne mooy bés boobu nga xam ne ci la Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ganese àdduna bi mu soobee yàlla sunu borom mu nekkat danaa ko jëmmal wàccee ko ci biir doomi aadama mu soob yàlla sunu borom ci kàttanam ak yiwam mu jaarale ko ci soxna maryaama xel mu sell mi ñëw wàcc ci kawam mu jur kooku ñu naan yéesu kirist solo boobu laa bëgg ñu waxtaan ci tey ji waxtaan boobu nag dañ koy lal ci li téere bu sell bi wax bu ñu jàngee ci kóllëre gu bees gi tubaab yi di ko wax nouveau testament bu ñu jàngee ci injil xaaj bi nga xam ne moom la ñu jagle luk lii la yàlla sunu borom wax lii la téere bu sell bi wax nee na yàlla yónni na malaaka jibril ci dëkku nasaret ci diiwaanu galilée mu yabal ko ca ab jànq jànq ba mi ngi tuddoon maryaama malaaka bi dikk ci moom ne ko jàmm nga am yow mi boroom bi defal ay yiw mi ngi ak yow waxi malaaka bi daldi jaaxal maryaama mu xalaat lu nuyoo boobu mën a tekki malaaka ba ne ko bul ragal dala maryaama ndaxte yàlla tànn la la ci yiwam dinga ëmb jur doom ju góor nanga ko tuddee yeesu téere bu sell bi di wéy di wax ne maryaama laaj malaaka ba ne ko naka la loolu mën a amee man de jànq laa ba tey malaaka ba tontu ko ne xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañu ko woowee ku sell gi loolu lañu téere bu sell bi loolu lañu yàlla sunu boroom wax mu jëm ci jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist lu mu ganesee àdduna téere bu sell bi di wax ne yàlla dafa yónni malaaka Jibril ci soxna Maryaama ne ko kat yàlla tànn na la te dana wàcce yiwam ci sa kaw dana am ab doom ju góor goo xam ne dana judd ci yow bu juddoo nañ ko tuddee Yeesu Kirist ndaxte mooy ku sell ki loolu bi mu amee soxna Maryaama laaj malaaka bi ne ko lu mel noonu nu mu mën a amee ndaxte man kat ab jànqalaa ba léegi duggaguma ci néegu sëy malaaka bi ne ko yàlla dana la yiir ak kàttanam ba loolu dana xam ñaari mbir nag ñu ko di ñu mun ko jàpp ci lii nga xam ne téere bu sell bi wax nañu ko bi ci njëkk mooy juddoom wuute na ak ni doomu aadama di ganesee àdduna yàlla sunu boroom la soob mu nekkat jëmm ji nga xam ne danañ ko woowee ku sell ki ci anam yii anam bii laa koy jaare mu ganesi àdduna lu mel noonu mësul am dootul am ba faw mu ne ko danga ko tuddee Yeesu Kirist ndaxte kooku kat ku sell la tur boobu nekk tur boo xam ne tur bu am solo la ku sell ki mu gane si àdduna ci anam bu sell mu soob yàlla sunu boroom mi nga xam ne moom moo mën te mooy jëf nu mu ko soobee mu nekkat jëmm ji nga xam ne dama ko yónni ci àdduna ngir mu dox mission bi gën a am solo bu nit mësula dox ci suuf te nit du ko dox mukk ci suuf ci anam bii laa koy jaare ngir mu gane si àdduna moo tax ñu ko doon wax ku sell ki tur boobu mu tibbee ko ci aji sax ji yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo sàkk lépp moom mooy ku sell ki mu dellu ne kat jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom yàlla sunu boroom tuddee na ko ku sell ki ndaxte dafa yónnee malaaka bi Jibril mu wax ak soxna Maryaama mu ne ko moo tax xale bii di juddu dinañu ko woowee danañu ko tuddee ku sell ki Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mooy ku sell ki sellam boobu nag dafa am lu ci yàlla sunu boroom jublu woon moo tax mu ne naa ko defee ci anam googu jëmm jooju di gane si àdduna na sell jëmm jooju di gane si àdduna bu am benn sobe benn gàkk-gàkk dara loo xam ne dana taq ci moom ndaxte fa ma jëm ak moo am bu ñu fa yeggee sellam googu sellaayam googu moo waral dana matal mission bi nga xam ne moom laa ko jagleel yàlla sunu boroom ne kat soxna Maryaama malaaka ba jibril ne ko yàlla kat nee na yow dana la yiir ak kàttanam te doom ju góor googu di judd ci yow danañu ko woowee danañu ko tuddee ku sell ki kon mbokki auditeurs yi ñu gis ne yàlla sunu borom ci téere bu sell bi mi ngi ñuy jàngal anam bi nga xam ne noonu la jëmm jooju Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ganese àdduna bu ñuy wéy di jàng ci téere bu sell bi dañuy gis ci injiil xaaj bi ñu jagleel Matthieu foofu tamit am na loo xam ne yàlla sunu boroom mi ngi ñu koy wax ci jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ nee na danoon koy woowee danoon ko tuddee ku sell ki moom Yeesu Christ mi ngi wax tamit naan ci Matthieu jànq bi dana ëmb jur doom ju góor ñu tuddee ko Emmanuel liy tekki yàlla ganesi nañu yàlla sunu boroom nee na ñëkk danañ ko woowee ku sell ki ndaxte dafa sell mu teg ci ne jànq bi kat dana ëmb jur doom ju góor ñu tuddee ko Emmanuel liy tekki yàlla ganesi nañu ma bëgg ñu taxaw foofu ci tur boobu tur bu am solo boobu nga xam ne moom la ñuy jox Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ tur boobu di Emmanuel téere bu sell bi di ñu wax ne kat mi ngi tekki yàlla ganesi nañu yàlla wàll si na sunu biir yàlla seet si nañu yàlla ganesi nañu téere bu sell bi di ñu wax ne boo gisee yàlla sunu borom ne Seydina Isa almasi bi mooy ku sell ki danañ ko woowee ku sell ki yokku ci ne danañ ko woowee Emmanuel mi ngi firndeel foofu beneen pàcc ci mission bu am solo boobu nga xam ne jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mi ngi ko dox fii ci biir àdduna ca njalbeen bi yàlla sunu borom sàkkee aadama ak awa dafa am mbir mu rafet mbir mu neex ci xol mbir mu am solo bu doxoon seen diggante téere bu sell bi dañuy wax ne yàlla sunu borom dafa sàkk aadama ci anam bi nga xam ne sàkkewu ko beneen mbindeef su ma nee mbindeef maa ngi wax ci rabu àll maa ngi wax ci yeneen yi nga xam ne yàlla sunu boroom sàkk na ko yàlla sunu boroom nekkat damay jël li nekk ci man ma def ko ci aadama maanaam aadama dana am ci man dana jël ci man bi mu ko sàkkee ba pare ne ko nag yow aadama danaa génnee ci yow li ñuy tuddee jigéen bi mu leen sàkkee ñoom ñaar mu dugal leen ci bërëb boobu nga xam ne moom la leen jagleeloon yàlla sunu borom ne sunu maam aadama taxawal mu taxaw mu ne ko bërëb bii laa la jagleel mu ne ko gis nga lépp lu fi nekk yaa ko moom li nga xam ne ay rabu àll la sax yow yaa leen yi wutal tur yàlla sunu borom wutalul tur rabu àll doomu aadama sunu maam aadama moo tudd rabu àll bu nekk téere bu sell bi di ñuy wax ne kat jamono yooyu ca njalbeen yàlla sunu borom da daan gane si aadama ak awa da daan ñëw di leen fekk si da daan jóg di dox ay jéego di dem ci ñoom téere bu sell baa ngi ñuy wax ne yàlla sunu borom da daan ñëw di gane si doomu aadama sunu maam aadama ak sunu maam awa yàlla sunu borom da daan demalanteeg ñoom yàlla sunu borom dafa façon kóllëre ak sunu maam aadama ak awa bañ a defee nag li ñu def déglu keneen ku dul woon yàlla li xew-xew diggante ba ñagas te li ko indi moo doon sunu maam aadama ak awa seydina isa almasi bi ñëw gane si àdduna balaa muy gane si àdduna sax yàlla sunu boroom nekkat ee kooku di ñëw de tuddee naa ko Emmanuel maanaam ganesi naa leen yàlla sunu borom di ñu jàngal foofu ne dellu si na waat sunu biir kóllëre googu nga xamoon doxoon na sunu digganteem ak sunu maam Aadama ak Awa kóllëre googu feddali na ko waat jëmmal ko def ko nit mu nekk sunu biir muy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ ñu koy wax Emmanuel Seydina Isa almasi bi mooy yàlla sunu boroom ci sunu biir ndaxte soob na yàlla sunu boroom mu nekkat cofeel bi ma amoon ci doomu aadama kóllëre gi doxoon sama digganteeg moom kóllëre googu danaa ko delloo siwaat ndaxte sopp naa doomu aadama am naa cofeel ci moom bëgg naa ko te la nga xam ne moo amoon ca njalbeen ga danaa ko delloo siwaat bii yoon nag dama koy jëmmal mu wàcc ci biir nit ñi ma gane si doomu aadama yàlla sunu boroom daan joxe ay firnde nag ci loolu nga xam ne moom la mbébatoon moom la bëggoon te mu mujj ko matal ci seydinaa isaa almasi bi yeesu kirist yàlla sunu boroom ne woon yoneen tam musaa da ngay tabax wala boog da ngay liggéey ab kër goo xam ne bani Israël dana ñëw di ma jaamu ci bërëb boobu bërëb boobu biñ ko defaree mu nekk bërëb boo xam ne yàlla sunu boroom dafa daan wàccee leeram ba képp ku bokkoon ci bani Israël mënoon ñëw dugg foofu taataan ci leeru yàlla sunu boroom taataan ci yiwam bi ñu nekkee ci manding bi mu leen génnee ci loxo yi firaw na mu ne kat da ngeen ma defal lu mel nii wante bis boo leen demee ba dal ba dugg ci dëkk bi nga xam ne moom laa leen jagleel bu boobaa nag da ngeen may tabaxal ab kër kóllëre gi doxoon sama digganteeg yéen ma koy wéyal ci kër googu ngeen fi wéy di ma fa fekk di ma fa jaamu yàlla sunu borom joxe foofu benn firnde téere bu sell bi dañuy wax ne bani Israël dañ daan dugg foofu di jàkkaarloo ak moom di ñaan ci turam di def ay sarax di màggal turam yiwam di fa wàcc mu am kóllëre goo xam ne doxoon na seen diggante mu doon firnde nag firnde la rek ndaxte mi ngi doon pare bi nga xam ne mooy bu mat sëkk bi bi nga xam ne bu yegsee du ko jagleel xeet du ko jagleel deret du ko jagleel dëkk bàyyi dëkk da koy jagleel doomu aadama kese mu ne nag boobu bu matee bu ma ko indee biir àdduna képp koo xam ne doomu aadama nga dang ciy jot du am xaaj ak seen mbindeef bu ma sàkk rek am nga ci sa wàll yayoo nga ko kon képp koo xam ne doomu aadama nga yàlla sunu borom sàkk la rek yayoo nga Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo tax bi mu ñëwee daf ko wone dafa wone ne kat yàlla ganesi na àdduna te yàlla dafa bëgg doomu aadama jege ko moo tax musul dummóoyu kenn ma jox ci benn firnde jamono yooyu boo nekkee nit koo xam ne danga am feebar bu demee ni ki gaana dañ la daan ber génnee la ci dikk bi ñi nga xam ne feebar boobu dafa wàccoon seen kaw dañ leen daan ber ba nga xam ne fi nit ñi nekk duñ fa nekk dañ daan génn ci dëkk bi sori ko téere bu sell bi dañuy wax ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ da daan toog ak ñu mel noonu ñu yore feebar bu mel noonu rax ci dolli dañ daan ñëw ci moom di ko laal du leen seexlu du leen dummóoyu du leen dàq te du leen daw mu yokk ci sax di leen faj di leen wéral ndaxte téere bu sell baa ngi ñuy wax naan ne ñu mel noonu wéral na leen ba tàyyi mu am beneen boo xam ne xew na mooy bés mu dugg ci benn dëkk mu am ndaw soo xam ne dafa ñëw jàpp ci moom bi mu jàppee ci moom mu geestu nekkat ah am na lu xew ndaw si ne ko maa ngi jéglu sang bi man maa jàppoon ci yow ndaxte man kat dama am feebar boo xam ne daf ma dab damay gis baax fukki at ak juróom ñett yoo xam ne bés bu nekk may gis baax te munul dakk munul deñ ma am ci gàcc sobe di nekk ci man ma ne kat su ma ñëwee jege la ba jàpp la lu mel noonu dana deñ ci man téere bu sell bi dañuy wax Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist def na ko kat bés na ko tey sa feebar bi sa jàngoro bi dañ na ci yow fa la ndaw si jógee wér faju te ñu xam ne lu mel noonu bu daan dal jigéen dañ ko daan wax kat ne yow da nga war a dem def nii def na le am na yenn yoo xam ne sax du ci mën a dugal loxoom mbir mi daan na doy waar ba nga xam ne sax togg daanu ko def Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist nangu nit ku am loo lu mel noonu teg loxoom ci kawam maanaam muy wone foofu cofeel bi nga xam ne yàlla sunu boroom am na ko ci doomu aadama loolu moo tax yàlla ne danaa leen gane si firndeel ne kat bëgg naa leen am naa cofeel ci yéen te noo leen mënta mel maa ngi leen nii tàllal sama loxo pare naa dalal leen mbokki auditeurs yi nañu bàyyi xel ci ñaari tur yooyu nga xam ne yàlla sunu borom ci boppam moo ko jox Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ maa ngi leen di wax ne bi ci njëkk téere bu sell bi mi ngi wax nañu yàllaa ngi naan kat kii danañ ko woowee ku sell ki ñaareel bi mu ne mooy Emmanuel liy tekki yàlla ganesi nañu jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo ñu woon yàlla jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo feeñal yàlla sunu boroom maanaam won ñu lan mooy mbëggeel ak cofeel bi nga xam ne am na ko ci doomu aadama yàlla sunu boroom dafa def jéego bu am solo boobu jéego boobu nag mu jëmmal ko jox ko ay cër firndeel ko wàccee ko sunu biir muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist téere bu sell bi di ñu jàngal ne mooy ki nga xam ne kër gu nekk bëgg na fa dugg xol bu nekk bëgg na fa dugg jëmm ju nekk bëgg na jokkalanteeg yow téere bu sell bi di ñu jàngal ne Seydina Isa almasih bi Yeesu Christ ci gane bi mu gane si àdduna firndeel na loolu nga xam ne moo doon mission ngam maa ngi leen doon wax sànq ne gaane yi ñëw nañ ci moom langaamu ci moom mu dalal leen jigéen ñi daan gis mbaax nga xam ne dañ leen daan tëj ci ay kër tëj leen ci ay néeg ñëw nañu ci moom mu dalal leen ñi nga xam ne sax dañ doon jaay seen bopp ñëw nañ ci moom mu dalal leen ñi nga xam ne def nañu naka sudul noonu ñëw nañ ci moom mu dalal leen jéggal leen ñi nga xam ne société bi daf leen bàyyi woon askan bi dummóoyu leen ñëw nañ ci moom daw ci moom làqu ci moom mu dalal leen ñi nga xam ne tamit ñu amoon lañu ñëw nañ ci moom mu dalal leen ñi nga xam ne ay boroomu ndombal tànk lañu daw nañ ci moom ñëw ci moom mu dalal leen amul kenn koo xam ne mës nga ñëw ci moom te dalalu la amul kenn ku mës a ñëw ci moom mu xeeb la amul kenn ku mës a ñëw ci moom mu dumbóoyu la loolu mooy taxawaayu yàlla sunu boroom yàlla sunu boroom mi ngi ñuy jàngal foofu ne ku ñëw ci moom mu dalal la ku daw jëm ci moom mu dalal la ak loo mënta def ak loo mënta wax ak dund boo mësta dund boo dawee ñëw ci moom yàlla sunu boroom sukk ci kanamam jéggalu mu jéggal la yàlla sunu boroom sax xaarul ñuy daw di ñëm ci moom moom moo fàq daw ñëw ci ñun yàlla sunu boroom xaarul sax ñu koy gestu moom moo ñëw ci ñun nañu pëkk-pëkk nañu kat maa ngi nii seet si naa leen gane si naa leen dalal leen ma yàlla sunu boroom moo bëgg doomu aadama yàlla sunu boroom moo jël mbëggeel boobu jëmmal ko jox ko ay cër wàccee ko ci sunu biir muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo tax bi malaaka bi ñëwee Jibril ci soxna Maryaama ne ko kat lii nga xam ne mi ngi ci yow nga xam ne dana gane si àdduna kat ah Maryaama lii wuute na ak li daan ñëw ci biir àdduna kii nga xam ne ëmb nga ko mooy ku sell ki kii nga xam ne ëmb nga ko mooy Emmanuel yàlla ganesi na leen kii nga xam ne ëmb nga ko mooy ki nga xam ne mooy yoonu mucc mooy yoonu texe kii nga xam ne ëmb nga ko moom moo yore caabi dund gi kii nga xam ne ëmb nga ko mooy dund gi képp ku jàpp ci moom texe nga moo tax bi loolu xewee bi mu ganesee àdduna téere yàlla gi nañu téere gu sell gi ne yàlla dafa yónnee malaaka yi ñu ñëw ci àll bi fekk fa ay sàmm feeñu leen ne leen ka ah daw leen a daw daw leen a daw ndaxte tey jii ci biir Galilée am na lu fa xew ki ngeen doon xaar yegsi na ki ngeen doon xaar yegsi na yàlla sunu boroom ganesi na leen seydina isa almasi bi yeesu christ jëmm jooju nga xam ne fii ak ay fan danañ feetu ci biir jàngu yi ñu ñu ñu màggal turam ñi nga xam ne sax xamuñu ko danañ bokk ci feet bi danañ wàllu si wante nañu bàyyi solo bàyyi xel ci solo feet boobu solo bi mooy yàlla sunu borom mi ngi ñuy woo ci boppam yàlla sunu boroom ubbil nañu buntu texe wan nañu yërmandeem ubbil nañu buntu mucc yàlla sunu boroom wan nañu cofeel ji nga xam ne moom la am ci ñun yàlla sunu boroom mi ngi ñuy jàngal foofu ne kat képp koo xam ne bëgg nga ko dalal moom pare na ñëw ci yow moo tax Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ wax ne maa ngi ci sa buntu kër di fëgg boo ma ubbilee danaa dugg boo ma ubbilee danaa dugg man kat maa ngi ci bunt bi di fëgg te duma tàyyi duma sonn maa ngi fëgg nag boo ma ubbilee rek ma dugg maanaam yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ne kat mi ngi fëgg mi ngi fëgg buntu xol yi buñ ko ubbilee rek mu ñëw buñ ko ubbilee rek mu ñëw képp koo xam ne bëgg nga dalal yàlla sa borom na la wóor ne pare na doon sa gan képp koo xam ne bëgg nga yàlla sunu borom wàll si ci sa dund na nga xam ne moom pare na li ci des kay ñun la Seydina Isa almasi bi nag Yeesu Kirist ku ko dalal sa xol dalal nga yàlla sunu borom gan googu ku ko dalal dalal nga yàlla sa borom gan googu ku ko ubbil sa bunt ubbil nga yàlla sa borom te amul xàjj ak seen yow mi may déglu ak koo mënta doon ak foo mënta jóge ak loo mënta def boo dalalee Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mu doon sa gan boo ko ubbilee sa buntu xol mu ñëw wàll si te Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mooy jàpp sunu loxo yóbbu ñu ci aji sax ji Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mooy ki nga xam ne dana far sa bàkkaar ndaxte fay na njëg bi ci bant ba Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla sunu borom nee na mooy ku sell ki mu jël ko def ko ab sarax ngir mu far sunuy bàkkaar ngir mu soppi ñu ngir mu def ñu ñu mel ne mburtu moo xam ne mësuñu am dara gàkk-gàkk sunu kaw jël ñu yóbbu ñu ci kanamu yàlla sunu borom aji sax ji moo tax bi mu yéegee ci bant bi ba ñu daaj ko ba nga xam ne jël nañu bakkanam ruu gi dellu na ci ki nga xam ne moom rek a nekk mu nekkat ah lépp mat na liggéey bi mat na li nga xam ne waroon na ko def ngir defaraat diggante doomu aadama ak yàlla sunu boroom def na ko ba mu mat sëkk li gën a am solo nag ci mission boobu du doon dara du dul yàlla sunu boroom ganesi nañu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mi ngi tekki yàlla ganesi nañu yàllaa ngi sunu biir yàlla joox si na ci sunu biir Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ du kenn ku dul yàlla sunu boroom kon mbokki auditeurs yi fii laa yem ak yéen ci sunu waxtaanu tey mi te di ñaan yàlla sunu borom ci kàttanu xel mu sell mi mu ubbi xol yi ubbi xel yi ba nga xam ne lii nga xam ne may la bu jóge ci yàlla sunu borom nañ ko nangu te buñ ko caaxaane lii nga xam ne may la jóge ci yàlla sunu borom yàlla nañ ko nangu te buñ ko nangoo mu doon ngëneel ci ñun buñ ko nangoo mu doon texe mu doon mucc buñ ko nangoo nangu nañu yiwu yàlla kon yal na leen yàlla sunu borom barkeel ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ wasalaam mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35